ñi nga xamante ne nii duñ la duñ leen duñ leen dencee fii mm-hmm. corona moo leen faat mm-hmm. néew bi manqué na tuuti ci ay cëram mm-hmm. bu njëkk ba dañ doon wax ni dañ doon profané euh, bàmmeel yi léegi jotatoo dem sax ci biir fañ lay sange ak sang néew mhm. na ca ne mhm. néew boo ko tiimee sa xel war a dem ci yàlla subhanahu wa taala directement mu war la delloo mhm. en tant que imam jamono ji jaaxle wu tiit ñaawlu ndax ñaar waaw diine mayuñu ko aada mayuñu ko soxna bi ba fàttalikul ni fii li ñuy tuddee ne Sénégal muy réewu teraanga jàmbur jàmbur xamuñu ku ñëw dañ lay teral mais nga dem ba kii bokk ci yow dee ñu ne duñ ko suul parce dafa corona mais corona mooy lan tuberculose moo gën a garaaw ay nit dëkk nañ ci famille tuberculose dee ci famille bi ñu suul leen mooy le problème ay nit corona ñu leen di yóbbu ci barab ñu ne noo duñ leen fi suul parce que dañoo korona nit si daanu sax ñu suul ko. nit ku dee dañu koy ormaal yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am néew bu ko romb di ñëw ñu ngi toog ci saxaaba yi mu jóg taxaw saxaaba yëpp jóg taxaw parce que mooy sang bi mu jógee rek ñëpp jóg mu jàll ñu toog saxaaba yi ne ko ah yaa rasulallah néew bi du jullit. yahud la mu ne dama ni dañu koy def ngir ñu màggal doomu aadama bi fu ngeen toogatee ba néew romb leen jóg leen taxaw gis nga kooku orma bi mu jox doomu aadama nee na doomu aadama bépp orma bu ñu koy jox ci dund bu deewee orma boobu lañ koy jox néew dañu lay tere nga dagg dara ci cëram xam nga yaa ngi koy junj léegi néew bu ñu toj di ko sang ñu commencé di coppati ay cëram loolu njabarkat moo koy def. ay sikkim bi baaraam yeeg. mooy waa kenn ka nekk Touba. njabar nit ñi ñoo koy def benn am na kuñ bëgg njabar ñu laaj leen ay cëru néew nga def ko parce que dañoo xalaatul ëllëg bàmmeel néew kenn du dagg karawam. wewam baaraamam dreetam lennam kenn amul sañ-sañu dagg ko yonent bi nee na ku damm cëru néew ginnaaw bi mu deewee xam mooy néew yaa ki damm cëram ba muy dund yéen a boo demoon dagg baaraamu néew bi dañu lay àtte kon koo xam ne yow da ngaa dagg baaraamu nit kuy dund benn la amul différence lépp lu ñuy bañ ci nit ki bi muy dund bu deewee kenn du ko def moo tax yonent dafay tere joggi ci bàmmeel dañ koy tere même boo duggee ci armeel dañ naan la del xool fi ngay teg sa tànk bul ko teg ci kaw bàmmeel parce que bu doon dund doo dëgg ci kawam moo tax buy bu deewee doo dëgg ci kawam néew kenn du kabine ci kawam kenn du tuur ndox ci kawam kenn du raxasu raxasu sax diine da koy tere nga def ci kaw néew wala bàmmeel bi sax jël bi ci boppam yooyu yëpp dañu la ko teree. ñoom wis ndox ñu ciy def. waaw mën nga wis mais bu raxasu xam nga raxasu da nga jël sa tilim di ko sotti ci kaw nit bu doon dund boo raxasoo ci kawam da ngeen di jote. yonent bi ne même bu deewee bu ko def. lépp lu ñuy ormaalee nit ci dund nee na nañ ko ormaalee nit bu deewee nit dee ñu war ko suuli ñu téye ko di ko lëw lëwee di sànni ay xeer naan bu leen ko fi suul mais ko teg. loolu aada nanguwu ko diine nanguwu ko te nag wax dëgg yàlla ñi koy def nañu xalaat seen ëllëg ñoom xamuñu fan la ñuy mujj mën nañu dee dee bu ñaaw am na ñoo xam ne ku leen toroxal di ko gis ñi ngi bëgg a soppi jikko sénégalais yi sénégalais melul woon nii soxorul woon iñaanul woon siisul woon soo masaani génn àddina sa lépp ñoo ko yor mais man riir mii ma gis léegi non dama ci tiit diw fii la bokk waruñu ko fi suul diw bu deewee ñu dagg cër yi diw dafa bu ñu ko fi suul moo tax daal en tout cas Sénégal ñi ngi koy soppi soppi bu ñaaw nañu defaraat jikko yi soxna bi baax